jaar la euh, Maxtaar Ba ko wax maa ko dégg te Macky Sall weddiwu ko tappale yooyu dafay doy ne lépp lu ñu yëkkati loolu la tey bu fekkoon da ngaa leb ñëw def ko ci mbay mi gis nañu bi ñu tegee Prodac lan la ñu waxoon 300000 emplois amul 3000 emplois tey bu fekkoon da ngaa leb tey yóbbu tey ci àll bi yóbbu def ko ci këru liggéeyukaay def ko ci def ko ci mais lépp nga leb. di tabaxee ay tali naam tali yi soxla nañ ko mais nañu xool njëg gi. Mm-hmm. nañu teg tëral machine euh, machine bi taxaw nga wax ñu ne def nga 18 autopont ñu ne la ñaata nga ne 137 milliards. alors que am na beneen entreprise anglophone England boo xam ne mi ngi soumissionné woon 52 milliards. nga xañ ko kii soumissionné 52 milliards jox ko ki nga xam ne moom la ñuy wax société bu ñu wax matière mu SAIalisé euh, maanaam tey. mel ni dafa ñëw Sénégal nekk entreprise français tudd matière nga jox ko mu nekk 137 milliards maanaam perte loo ñu 85 milliards maanaam fi nga amee 18 autopont Sénégal mënoon na faa am lu jege 40 yii mooy tappale yi nga xam ne maanaam moom la Macky Sall leb léegi nag boo ñu ko lebaloon tey dem fu mel ni tey ci lax ndeng leer wala yu demee noonu fekk nit ñi moom seen suuf nga gunge leen gunge leen ci ay projet tey DER bii ñu jox ay dëmb DER bi mi ngi fi woon am xaalis nga mënoon a dem tey xale yi nekk ci village boobu yëpp def am nañ seeni tool ba noppi tey nga jàngal leen nan lañ ko mën a bay indi ay expert comme tey nii nga xam ne moom la ministère agriculture di def mu dal xel ba bëgga a fekk nit ñi fekk sax xam nga maa ngi seetaan démb am na ku mu fekk ci benn tool kooku am ay nag ànd ak loolu mënul am résultat mu ne leen seen nag yi distance bi ñuy parcourir moo tax du ñu mën a am ndawal même nag yi Sénégal tegoon benn barab di leen ndax yow xam nga ne xarum yar mantaw yem ak xarum mooy muy jafi li ñuy wax xar muy nekk mhm. di di di di wëtti wala muy jafi maam xaru pël-pël yeeg yu demee noonu mu ne ko li nga def nii solution bi mooy faaw ngay mën a bay ñax faaw nga indi ndox mu nekkoon ko nag tey sa nangami nag yi jaay ci fukki nag xam nga kooku mu ngi lay teg ci yoon kon tey bu ñu amoon ay experts yu mel ni moom wala ñu ko jegee wala ñu ko gën a xarañ tey ci jamono boobu yépp li fi mag Sall nekk diiran mu jàngal baykat yi wax leen nu ñuy def ba gën a mën a ñoŋal seen bay xaalis a koy def xaalis ay def formation bi soo neppee lebal leen bu ëllëgee duñ mën seen bopp. Mhm. kon ndax da nga leen gis ñooñu di ñëw di dawal ay jakarta fii. ndax da nga leen gis ñoom ñu ñëw di raxas ay oto fii te kiy raxas oto bu demee ba ëpp dépense wala gën a mën a joxe dépense ka toog ca tool yaa problème. te alors que ñun sénégalais yi mbay mi ñuy bay moom la ñu war a dundee dañoo war di bay ceeb dañoo war di bay mboq mboq mi moom la ñuy defaree aliment de bétail gis nañu ay jamono boo xoolee filière boo xam ne tey ak loo wax Abdoulaye moom taxawoon na ne nangul boppam ne échec na ci employabilité emploi des jeunes échec na ci te pourtant nit ñëpp xam nañ ne ci wàllu volaille filière boobu Abdoulaye daf ko réussir lan moo ko indi jékki-jékki na àdduna si am mbas am fi maanaam ci wàllu jur euh, njanaaw yi maanaam ñu ne euh, njanaaw yi dañoo am woppi ndee ñu koy wax grippe avière mm. waa Europe tëj seeni bunt Sénégal bëgg a rafetaay wu mu tëj seeni bunt Abdoulaye Wade ñëw wax ak ñi fi nekkoon avicole wala NMA Sanders comme NMA Ahmed Amar mu dugg ci yarum cuuj Babacar Ngom ci loolu lañ ko xam mu gën a yokk nu muy yare ba ñu am abondance ma am ci lu mel noonu lépp de gàññi biñ noppee dem ba grippe aviaire bi woppi ndee ndeeteel ginaar loolu dem ñoom ñu bëgg ñëwaat jaay Sénégal mu ne leen déedéet te bunt yi moom tëjoon naa ko duma ko tijjiwaat mayit nga xool ne secteur boobu ba nëga ni mi ngi dox ab Macky Sall sax benn jamono bëggoon na ko fee rey dugal beneen entreprise étranger bu ñëw di concurrence ak moom pour ma wax la kon tey bu fekkee dañoo am moom Bouba jaañ nit ñëpp gis nañ fi muy laal xam nañ ne foofu mooy yoonu développement réew yëpp dañoo fexe bay bay li ñu war a dundee waaye buñ ko bayee ba noppi di ko dundee kon ñu ngi ci yoon wi loolu téeméeri fan la nawet bi demagul téeméeri fan bariwut waaye teg nañ ci ay jéego yoo xam ne nii ku ko xool danga xam ne ñii yoon wii ñu jaar su leen yàlla defalee jàmm moo tax lan nga gis opposition bi bëgg koo tontoo mbir mi mooy fexe ba jaxase leen ñoom ñaar boole jëkk rambaaj ak waaba jiiba ku mel ni na Bocoum nag ci laa gën a am déception bu ma gën a am ci sama àdduna. génn ñu génn dem kon génn bi yow àndoo ci ci ni mu waxee. non nan laa ciy ante nit koo xam ne da nga ko nawoon ba di ko wax man bi may wax Thierno Bocoum yéene ji ma am ci moom boobu maa ngi am na manifestation wax dëgg yàlla manifestation yi fi ma sa am yëpp depuis 2013 mi ngi ci actif nag dëgg yàlla man moo tax du ma ko xeebal li mu daan def même bu ko gars yi vaar naan ay xuriku wala nag du ma ko xeebal te tooxaw naa ñëpp taxaw ñi ma bokkaloon parti ma ne leen kii laa naw mais li mu def démb wuute wut ak jëfi saytaane ja seytaane defoon ba mu fekkee maam aadama ca àjjana sa jaxase kook suñu borom xam nga bu demee ba arrivé jusqu'à ne Diomaye Ousmane Sonko mii moom moo fi nekkoon pour daaneel Macky sàll yow nag moo la fal tàggool ak moom boo tàggoowut ak moom dana la daaneel saytaan noonu defoon maam aadama gis nga yàlla mii di sa borom mu ne ko am mu ne ko garab gii mu la teree lekk daa bañ nga am pouvoir yi mu am waaye noonu la seytaane jéemoon a jaxase maam Ibrahima ak Ismaayla doomam waaye bëgg koo jaxasee jabaram gis nga diggante yu xat yooyu yàlla digal la di la natt nga gént ne danga war a rey sa doom nga woo sa doom waxtaan ak moom mu ne defal li la yàlla sant loolu du gént yàlla dalaa digal sa daj sa tajudu nii insha allahu mina sabirin waaw saytaane ñëw ne yow Ibrahima yow nan ngay juree doom di ko toll ni kooku ko bañ koo faale focus loolu mooy focus mu dem na doom ji yow ak at yi nga am ngay xullee sa baay di la rey kooku focus moom it bañ koo faale focus rek mu dem ne soxna si nàngam kooku focus premier ministre nag daf leen a tontu ca grand théâtre tey doog a ñëw mu ne leen Sonko joomaay joomaay sonk man li mu def li mu tudd laa koy wax na Bocoum man awma problème mu opposé président Diomaye awma problème mu opposé sonk mais arrivé jusqu'à te yow yaa ngi jaxase ñaar ñoo xam ne suñ jaxasoo li ma wóor te wóor mooy Sénégal instabil instabilité moo fii am Sénégal goo xam ne Macky Sall jëndoon na ay ngànnaay daanaka yoo xam ne mën nañoo jeg kenn gi xamut fu mu nekk en tout cas gisuñ ko ci loxo gendarmerie ni l'armée ni police marché d'armement 45 quarante cinq li wala li kii jëndoon tamit euh, ministre environnement mi ngi tas ci dëkk bi dëkk boobu nag ay nit jiite ko teg ko ci yoon yaakaar dellusiwaat yow nga am yéenay féewale ñaar ñooñu xam nga Sénégal dund noon na crise après diggante Dia ak Senghor waaye crise bi buñ ci tàbbee lii ñu ñu bëggal yàlla nañu yàlla musal ci seen làmmiñ yi ak seeni pexe loolu nag man duma wax ak Ousmane Sonko président Diomaye laay ñaan mu gën a vigilant xam naa ko ci njub xam naa ko ci fulla xam naa ko ci fayla xam naa ko ci dëggu lii ñu lay dëkkal sa nopp yi pour bëgg nga gis sa bopp pour nga xool xam ne yow yaa yor lenk yi waaw yaa ko yor waaye kii ñu la bëgg a féewaleel bu ci bëggoon doo ci jot néew ma dana ci jot de moo ciy jot de waaye bu ci bu ko bëggoon amaana doo ci jot ndax bi yàlla nammee nga jot ci moom boole na la ak as gor soo xam ne yaa ko waxal sa bopp France nee nga campagnal nga ko fukki at moom mu campagnal la fukki fan nga jot réew mi Ousmane Sonko Macky Sall mi fi jóge bi mu demee ba parce que man wax dëgg yàlla am seq nañ jotaay fii bi nga ma laajee chaque fois damay dal xel am na ñu ne yow da nga optimiste ba de trop parce que dama xamoon man réew mi ak fi mu jëm dama yàgg gëm ne projet bi mooy gañe lan laa la waxoon dama ne la woon fekk Pastef yàgg na de li ma lay wax nii. Mm-hmm. fekk deful de tort sorte que Macky Sall sànq Sonko ak bañ koo sànq yem ci moom sànq ko sax gën a bon ci moom. fekk parce yaa ngi koy fàttaliku. ay weer léegi mu jege at. ma ne la wala dem ba sànq sax gën a bon ci moom. maanaam Sonko teg keneen moo gën a danger ci président. non maanaam bu ko sànkoon rek même bu keneen ñëwoon sax waxuma sax keneen ki wala beneen parti kii maanaam loolu moo doon gën a bon ci Macky Sall. Hmm. Pastef laa doon wax. Mm-hmm. dama ne fekk defuñ de telle sorte que mu sànq ko ak bañ koo sànq yem ci moom te sànq ko gën a bon waaye Macky Sall waxuñu ñu ne ñun mujjantal gi yaa ngi fàttaliku. mu ne buñ ko toppoon. Mm-hmm. Karim bokk Ousmane Sonko bokk. Ousmane Sonko bokk. waa mais bu dee ñun waa léegi nañ xool Karim Wade Karim wàdd a tout faire pour bokk amul lu mu deful ngir bokk. ba yegg ci tuumaal ñaari magistrat ger tuumaal leen ger guerre Macky Sall xam ne loolu doyut parce que kuréel bi du ko tee mat parce que juróom-ñaar la woon su matee juróom ba tey mën nañoo taxaw te bu boobaa askan yu mën na leen a fekk si mhm. ñu tegaat ci seen njiit baajo Camara muy ñett léegi ñeent moom du baax léegi nag pour ngeen xamoon ne Macky Sall mën naa réussir loolu xam nga foo koy xamee bi mu bëggee tas Sénat malgré waru ko tas waru ko tase noonu daf ko def par force lijjantiwut ay mi ci loi wala nangam nangam de toute façon am na ensemble boo xam ne tappale yu ñu def feek ñoom ñu ngi ciy gis seen bopp dañ koy def maanaam dafa bari woon ci député yu ñoo xam ne du ñuy gor naka noonu mu jékki-jékki yokk prorogative njiitul OFNAC Bassirou Gueye mu sañ a jàpp nit tee ko garde à ni ko procureur yi defee ni ko OPJ yi di defee ñëpp xam ne loolu du yoon malgré du yoon def na ko magistrat yi wax nañu yegg nañ ba sax wax faalewu leen léegi nag bañ gi baña ca mbànjaxaan nga mbànjaxit bi amatut solo kuy mbànjaxaan nga mooy Ousmane Sonko ne nañu respect nañu respecté constitution bi kon bu usmaan bëggoon jamono yooyu Karim day bokkaat ci sëy bi waaye moom day bokkaat ñu bëtal mbir mi yóbbu ko ba décembre te ensemble pare woon nañ koo vote lan moo xew lu dul loolu kon Ousmane su bëggoon a bokk kut ko kut bañoon a respecté constitution noonu la doon def moo tax Thierno Bocoum mii wax naan Ousmane mi daan renversé Macky Sall est-ce que Ousmane dafa mës a renversé Macky Sall loolu it ba tey muy ay fen yu Thierno Bocoum fen nañ ko nettali ni mu demee Ousmane Sonko en mille 2021 bi sëñ Muntaxa yónnee ci opposition bi sëñ Bas Poroxaan lan la wax ñaña fekke fekkee nañ sëñ Bas Poroxaan ñu nettali ak ña ko fekke sëñ Bas Poroxaan lim ñu nettali mooy dane ñu muy ñaan nekkuñ fi ñu muy digal ñuy defa fi nekk am na ñu ca nekkoon ne ko waa ñi nga xam ne ñi ngi ci jota nàngam ak nangam wala lii suñ ko defee Macky Sall nàngam nangam faw ñu def lu nangam waaye lii la wax ay nit bëggoon a buur ba seen xel nekk ci délogé ji ko Ousmane ne déedéet suñu sàggane ba continuer armée mën naa jël réew mi te li ciy topp kenn xamul nu mu est-ce que kooku bëgg naa renversé jamono boobu Aliou loolu laaj la 2021. bëgg naa renverser wala bëggut a renverser. waaw ah, moom dañ ne woon na bëgguma ñuy dem. kon Thierno Bocoum fen na. kon loolu mooy Thierno Bocoum fen na. ñu ñëwaat ci bi ma lay wax bu ñëwaatee ba parce que nag dama ko respecté mais man am na foo toll samay teggin fi muy ñëwee mooy koo xam ne dafa trompé wu de bonne foi mën naa ko rafetal mais bu ma xamee de mauvaise fois nga ko def mënuma ko woowee lu dul li ma koy woowee loolu benn la. Ousmane Macky bi mu ñëwee ci élection yi nga xam ne Ousmane bu bëggoon nga xam ne Macky moo doon président de la république waaye man mënoon nañ ne Ousmane moo doon président de la république président de la république ak ak république suñ dajee buñ bëggee comploter askan yu mën naa yomb parce que bi ko ensemble dajee comploter ak moom bi mu amee ay nit ca élection locale ya ñoo xam ne tey ci administration lañ nekk comploter ak ñoom waaye ki ñuy wax Candé euh, la ak euh, Issa Sall ak ñooñu bi ñu yoree prérogative maanaam yor ay euh, dogal bi bëggee comploter ak ñoom def nañ kook moom lii mooy li am te booba Ousmane nanguwul loolu dafa nangu ñun respecté constitution bi muy ñaareelu fen ci Thierno Bocoum kon su taxawee ne coup d'état civil fen na ba ca kanamu yàlla aussi simple que ça ak wegeel gi ma am ci moom yëpp mais li mu def dafa garaaw jëfi rambaaj la jëf waxi rambaaj la wax la la wax yëfi jaxase la wax te mi ngi jaxase ñaar ñoo xam ne bis bu ñu amoon problème Sénégal moom li ci wóor mooy dugg na ci guuta moo xam dañ ciy génn après wala déet Sénégal li mu dund at yële te moom amul woon fitu fit wala jom ju toll ni wax neew mu amu ko parce que doon naa gis ci manifestation yi wax dëgg yàlla ak yooyu mm. mais li ci Ousmane ñeme ñemewul xaaj bi parce que wax na ko tàmbale na 2014 ba nangam di wax li masoon a def nangam nangam euh, xaw ma nu mu tëddati 1994 euh, laay wax. 1994 94 la tàmbali ba feey kañ la Ousmane tàmbali 2014. yàggul 2014 yàggul. 2024 euh, mu yëg ci. am jom joo amut. yàlla nag defal ko may ko sens. waaye sens boobu mënoon ko yóbbu bu xooloon boppam képp du joxoon jomaay nañ te dëgg. xam nga opposé man nga opposé mais li lay sagal mooy da ngay wax dëgg man dama am problème ak mag mu dul wax dëgg. d'accord kon lii mooy li nga wax kon daal Aliou. sans mm. jour yi. képp ku animé wu de bonne foi. te bëggoo maanaam bëgg saa su nekk Sénégal di am coow ngay dund ci coow li. mooy comme ñi nga gis lu xew ñu ne dañuy jubóole te problème amu fii ñu ngi bëgg a régler problème ñu ngi bëgg a créer problème ba naan ay président joomaay comme ku mel ni Assane euh, euh, nu mu tuddati Alioune Tine naan na jël responsable wala nangam responsabilité lan dem jaay ensemble doole déedéet fu président Diomaye di yëkkatee kàddoom mooy lan fan la toll mooy kase ensemble amul leneen moom déjà amul droit dugg fa kon bu dee dañuy wax république nañu wax république bu dañuy wax droit nañu wax droit xam nga lan moo fi jeex tappale yi fi amoon maanaam jàpp ne rek